gannaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan sunu borom nangul ñu mboolem suñuy jëf yu baax te jéggal ñu mboolem suñu rëcc rëcc bàyyil ñu sunu kilifa gi ci sunu kanam lu yàgg yàgg may ko wér ak kàttan ak ndimbal ba mu jëf lépp li nga xam ne yéene na ko jëf ci liggéeyu lislaam bi liggéeyu sëriñ bi te ñu ànd kook moom ci na mu gën a rafete gannaaw loolu suñu waxtaanu tey dafa jëm ci tomb bu am solo ci suñu diggante ak suñu boroom am ko ci suñu diggante ñun ci suñu bopp loolu mooy li ñuy tuddee kóolute kóolute mooy liy dox diggante ñaar ñu bëgg a jëflante kenn ku nekk wóolu sa moroom ci jëflante ba ne la ko ca war dana ko def kóolu si nag buñ ko waxee lu ci bari dañ cey jublu la ñuy wóoloo nit la ñuy wóoloo jëmm ji nit jëmm ji lañ koy wóoloo di séntu mu taxaw ca loole des na ko tuddee kóolute li ci ëpp sax loolu la ñuy tuddee kóolute ci biir ci bu ñu dellu ci alquran ak ci xadis ak ci téere boroom xam-xam yi kóolute googu nag mën na ko seddalee ñaari xaaj xaaj bu ci nekk nekk ay xeet yu bari xaaj bu njëkk bi mooy kóoluteeg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci topp mooy kóolute gi nga xam ne mooy dox ci diggante jaam ñi ci seen biir kóolute gi dox ci diggante yàlla ak yonent bi ak jaam ñi ay xeet yu bari la waaye ñaari xeeti kóolute yépp muy xeet mooy ñaar ñaari xaaj kóolute yi muy kóolute gi dox diggante yàlla ak yonent bi ak jaam ñi ak gi dox ci diggante jaam ñi ci seen biir ñaar yépp sunu boroom daf ñoo digal ñu di ko sàmm te bañ koo wor يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen war yàlla ak ak yonentam bu leen war yàlla ak yonentam mooy wane ne kon am na kóolute kóolute kóolute ak kóllëre gu dox diggante jaam bi ak yàlla ak yonent bi bu leen warit kóolute yi dox ci seen diggante woor yoo xam ne woor leen xam ngeen ne yéen a koy def ba noppi ngeen di ko def kóolute gu jëkk gi xaaj bu jëkk bi ay xeet la bokk na ci kóolute gi ñuy tuddee amaanatu taklif muy li dox jëflante bi dox diggante borom bi ak sunu maam aadama ak i doomam mooy li suñu boom di wax ci alquran inna inna aradna lamanata ala alsamawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaan innahu kaana zaluman jahula liyuazib allahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikat wa yatuuba allahu ala almuminina walmuminati wa kaana allahu gafuran rahima mu ne sunu boroom dafa woo dafa wax dafa wan asamaan ak suuf kóolute maanaam jëflante bi mu bëgg jëflante ak moom jëflante di la digal ngay def lu baax ñu di la fay di la tere lu bon nga di ko bàyyi ñu di la fay wala nga safaane mbir ya ay daan fekk la ca te loolu lépp nag ànd ak ñu may la coobare yi bu la neexee def bu la neexee bàyyi waaye loo ci def nag yaa koy gàddu loolu biñ ko gaaralee asamaan yi ak suuf yi ak doj yi eh, ñoom dañoo gàntal wane ne loolu kat ñemewuñ cee dugg ndax dañuy ragal dugg ca ba ca biir duñ ko mën a sàmm leen cee fekk fekk leen ca waaye nee na bi ñu ko wanee aadama bi ko yàlla wanee aadama ne ko lii laa bëgg a jëflante yow moom daf ko nangu ne ko acca ñu dem acca ñu def waaye ba mu ko nangoo itam taxul mu mu matal ko ndax dañuy wax ne ci ni ko xadis ba waxee ci diggante julli tisbaar rek tàkkusaan rek bi bi aadama digganteeg diggante digganteeg sunu borom ne dana dana mën a sàmm loolu ñu sàkku ci moom dana mën a jëf li ñu sàkku ci moom ci waxtu tisbaar bu taksaan di laataa jot garab gañ ko terewoon mu lekk ca seytaane mën na ko ba mu lekk ca ba ba ba mooy sunu boroom nga xam ne kon la ma waxoon yàlla ne ko loo ma digal danaa ko def loo ma tere ma ba ko léegi ma taliwu ko moo tax suñu borom di wax ci alxuraan wala qad ahidna ila aadama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma aadama seqoon nañu moom kóllëre bu jëkk mu fàtte kóllëre ga fekkuñ ci moom ak dogu amul dogu ak pasteefu euh, sàmm lam diggante yàlla ci kóllëre togg jëf euh, kon kóllëre googu aadama la ko suñ boroom euh, fasanteeloon muy loo xam ne nag da cay yóbbaale mboolem ay doomam ba ba àddina tukki Euh, kon doomu aadama yàlla da ko bàyyee coobareem may ko kàttanu jëf ak bàyyi digal ko dikk ko tere ko tëkku ko bàyyi ko coobareem nag lu mu def moo koy gàddu bu defee lu baax ñu fay ko bu defee ab safaan itam ñu topp ko ko loolu kon kóllëre la bu dox diggante jaam yi ak sunu boroom subhaanahu wa taala te lu ñuy laaj ëllëg la kóllëre ñaareel gi mooy bi nga xam ne yàlla da ko fasak jaam ñépp ci ñu nangul ko ne mooy seen boroom te buñ nangoo ne mooy seen boroom kon moom rekk lañuy jaamu mu ne bi yàlla sàkkee aadama dafa génne mboolem ay doomam yi mu nar a am yépp teewal leen daal leen wax ne xanaa duma ndax xam ngeen ne may seen boroom yéen ñoom ñëpp ñu ne ko waaw mun leen kon mu ëllëg nag ëllëg ki si biir bu leen demaat ba yàgg mukk ngeen naan euh, dañoo fàtte woon lii ñu waxanteeg yow baa ngeen naan danoo dikkoon fekk sunuy maam euh, génn ca wax ja ñu topp leen ca loola Euh, kon bul ñu mbugal ndax lii di ci ñun waa ci suñuy maam la mooy li alxuraan di wax ne wa iz axasa rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu bale shahidna an taqulu yowma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qablu kunna zurriyatan min baadihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun kon suñu boroom waxoon naag doomu aadama yépp la jiitu ba mu bindee ruuya te ñoom ñu nekkoon ci seen biir maam aadama mu génnee leen ca teewal leen ci kàttanam fas ñoom kóllëre ñu nangul ko nañ mooy mooy sunu boroom mu ne leen kon wax ji ngeen nangu na ci sax te bu leen ci génneen kon bi ñëwee àdduna itam kóllëre googe dañ ko war di fas dañ ko war di sàmm nangu ne yàlla mooy sunu boroom kon moom rek lañu war a jàmm loolu nag euh, kóllëre goo xam ne ku ci génn weddiwaat sunu boroom ginnaaw ba maa nga bokkaale ko ah kon kooko war na kóllëre rek sunu boroom doomu aadama yi nag dañoo

absolu kon kóllëre googu aadama ak i doomam ñoom ñëpp ñoo ko fasanteeg sunu borom la jiitu ñu ñëw àdduna waaye ñi ñëpp ñi ci ëpp dañ ko fàtte ginnaaw bi xamatuñ ne mason nañoo wax ak yàlla wax ji euh, moo tax ji yàlla yónni ginnaaw bi wàccee téere dañu leen tuddee ay fàttalikat mu mel ni kon kóllëre googu ñoo amoon te bañ ba ba ruuyee duggee ci yaram yi ñu far ko fàtt ñu fàtte ko kon moom la yonent yi di fàttaliwaat moo tax fa zakkir innama antamu muzakkir ak fa zakki fa zakkir nafaati zikre euh, kon am na nag ci jaami yàlla yi ñu yàlla may ñoom fàttewuñu ko moo tax ngay dégg ci nit yàlla yi ñoo xam ne dañuy nettali ba loola amee nañ doon def lañ nañ def ñoom ci ci jamono nga xam ñoom fàttewuñu jataay boobee ak loolee nga xam ne moom lañ fasanteeg yàlla fàttewuñ ca dara kóllëre gi ci toppaat mooy gi woy gëm ñëpp ñi gëm yonent bi ñi nekk ay jullit ñëpp nekk ci diine lislaam fas gi fas ak yàlla kóllëre ci ne gëm nañ ko moom yàlla gëm yonentam bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te danañ topp diine tënku ci lu yàlla digle ak yonentam danañ ko def lu mu tere danañ ceeb danañ ko bàyyi seen kam kàttan mooy suñu borom di wax واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور fàttaliku leen xéewal génn yàlla defal te mooy wàcceel leen diiney lislaam te ngeen fàttaliku itam kóllëre gi ngeen fasante woon ak yàlla yéen way gëm ñi ba ngeen waxee ne gëm ngeen yàlla ak yonentam te lu ñu leen digal da ngeen ko def lu ñu leen tere da ko bàyyi kon ragal leen yàlla te xam ne yàlla dara ump ko kon képp ku gëm yàlla rek tudd ñaari baat seede yi fasante nga ak yàlla kóllëre ci topp diine lu ñu la digal nee nga danga ko def lu ñu la tere nee nga da ko bàyyi soo ko waxee ci sa làmmiñ benn nga wax ci sa làmmiñ mbaa jëmmi gëm gi rek nekk ay wax ci yow kon kóllëre googu itam ku ku ku moyaat sunu ndigal sunu borom ginnaaw bi mbaa moyaat ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mel na ni kon ku wor la kóllëre googu nga xam ne moom la façon naka noonu tam bokk na ci kóllëre yi kóllëre yi dox ci diggante yàlla ak tam gépp kóllëre gu ñu fas ngir yàlla rek lépp loo xam ne kóllëre gépp gu nit fas ak keneen te yàlla tax mu fas ko rek loole kóllëre la gum fasante yàlla moo tax ñu jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Xudaybiya ya alquran nee na ñooñee yàlla lañ jaayanteel ndax loxo yàlla ci seen kaw loxo ñu jaayanteeg moom inna alladina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allah yadullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innamaa yankusu ala nafsi wa man afa bimaa ahada alayhi llaaha fa sanuutihi ajran azima mu ne kon ñoo ña jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci ne ko danañ ànd yow xeex ak waa Màkka joxe suñu bakkan nee na yàlla lañ jaayanteel euh, kon ku fa ku matal kóllëre gi nga fasante yàlla da nga ci am tuyaaba ju rëy rëy euh, kon loola kon kóllëre gi ñu fas ak yonent bi yàlla tax ñu fas ko moo tax kon dafa mel ni yàlla lañ euh, fasanteel kóllëre kon ba ci ñi nga xam ne dañoo topp ay kilifa ñoo jaayanteeg seeni kilifa doxal leen seen diggante seen moom ñu seeni wasiila ñu ne danañ topp kilifa yooyee ci yoonu yàlla ñoom it kon kóllëre googee dañ ko fas seen diggante ak seen borom war koo sàmm ñëpp ñoo xam ne dañoo ànd it te yàlla tax ñu ànd fasante kóllëre ci ànd ngir yàlla kon kóllëre googu ñu fasante mel na day dugg ci biir kóllëre yi nga xam ne dañ ko fasante ak ak ak ak yàlla kóllëre nag nekk loo xam ne lu ñuy laaj la ëllëg waa foo inna al ahda kaana mas'uula suñu borom ne na ngeen di matal seeni kóllëre ndax kóllëre dañ koy laaj bu ëllëgee ki matal kóllëre dana ci am yool bu rëy te dem àjjana ak ngërëmul yàlla mën na ko ca fekk waaye ki nga xam ne nag war na kóllëreem kooka am na bàkkaar bu mag a mag te mbugalum yàlla mën na ko ca fekk ak dem ci ëllëg ca safaan ba wala yaas billaahi taala kon lii mooy xaaj bi jëkk ci xaaji kóllëre yi nga xam ne mooy moom la jaam bi di fas mooy kóllëre gi dox ci digganteem ak boroomam ak digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi am na yeneen xeeti kóllëre yu bari ci yuy dugg ci biir kóllëre yi ñu wax yoo xam ne suñu bor alxuraan mi ngi ko li yàlla fas koog ay nit lu jiitu euh, lislaam jiitu julli ñu euh, euh, yónni yonent bi rawatina banoo Israel Euh, ak la mujj ca kóllëre ga ak euh, la leen ca fekk euh, kon kóllëre yi yu mat a bàyyi xel la yu mat a sàmm la ndax kóllëre yàlla moo gën a mat a sàmm ci mboolem xeeti kóllëre yi kon ñu dikk ci xutba bi nga xam ne moom la imaam bi war a xutba ci kanam tuuti incha allahu taala ci xutba bu njëkk bi dafa sant yàlla mi nga xam ne moo sakk ay bis def ko mu nekk ay bis yu tedd mu sakk ay jamono defal ko lislaam muy ay jamono yi ngëneel ak jamono yiw lu mel ni jamonoy weeru koor euh, ak jamonoy weeru rajab ak chambaan ak yu mel noonu nga xam ne da koy def mu nekk ay jamono yi ngëneel ak yiw yoo xam ne bu dikkee julli dañuy xam ne jóge nañ ci jamono dugaat ci jeneen jamono mu ne mu ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def loolu di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu tam yeyoo ko jaamu ga di jariñ ñàkk jaamu ga di lor ku dul yàlla moom dongay buur bi ñu war a jaamu te amul kenn ku mu bokkal nguuram gi ak doon gi mu doon yàlla mu ngi sedd ne sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la tey ndawam te mooy ki nga xam ne bindeef yépp moo leen gën a kawe daraja te euh, ndam lim amit ci kaw ñépp mooy ndam moo gën a fees mu ne ginnaaw loolu yéen jaami yàlla yi na ngeen xam ne yàlla day defal leen ay xéewal yu bare bare bare bari yu màgg a màgg a màgg kon na ngeen màggal xéewal yooyee mooy na ko jëfandikoo ca la tax yàlla eh, jox leen ko te bég ci ngir lam bàyyi ko fa yàlla sunu borom defal ne ay may yu baree baree bari yoo xam ne war ngeen koo yëg te safoo ko te sant ko ca na ngeen xam ne may yi leen yàlla may eh, xéewal la gum leen bette goo xam ne waru leen koo bàyyi rek sàggane ko mu jàll noonu te du ngeen ko jariñoo na ngeen ko war a jariñoo nee na bokk na ci loolee nag weeru mag wi nga xam ne ci lañu nekk muy weeru chambaan xéewal gu mag la di may gu rëy gu nu boroom may ñu war cee bàyyi xel war farlu bu baax ci jëf ju baax ci biir weer wi nee na am na guddi guy ñëw ca kanam mooy guddik fukk ak juróom ci weer wi mooy laylatul nisfi Sha'ban guddi nisfi Sha'ban guddi la goo xam ne euh, ngëneel lu mag ngëneelam lu siiw la ngëneel lu siiw la am euh, lu màgg a màgg la lu barkeel la barkeel la guddi la gu barkeel goo xam ne ci la yàlla di euh, ràññale dogal yi muy dogal ci at mi ci ay jaamam at mu nekk dogal yooyu yàlla wàcce ci ay jaamam ci fukki weer ak ñaar yi ci guddi googu lañ koy jëlee ci lawxul mahfuz euh, daal koy génne def ko ci beneen barab ba soob suñu boroom bala ñu ko wàccee ngir di ko wéyal euh, mu ne loolu kon ci guddi googu lañ koy lañ koy def mooy mooy li suñu borom bi wax ne inna naa fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min naa bu ko defee nag bu ñu wàccee dogal yooyu ba noppi bu ñu àggee ca laylatul qadr ca ko weeru nag ñu soog koo wàccee ci barab bañ ko tegoon bañ ko génnee ci loxo dool ko wàcce nag ci asamaan su jëkk si dool dool doora nag tàmbali eh, dogal bu agsi cib jaam ñu wéyal ñu doxal ko ci kawam mu ne kon ci guddi googu la ñuy def loolu kon guddi gu màgg a màgg la mu ne kon yonent bi sal sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi googu eh, ku ko yàlla fekkeloo na nga màggal guddi gi te mooy nga def ci ay xeeti jaamu yàlla yu bari yu yoo te itam bëccëg ba ca topp muy bëccëgu fukk ak juróom ba muy nisfu Saabaan bëccëg boobu itam nga woor ko wax na ci beneen xadis ne ku màggal ku woor bisub nisfu Saabaan mooy bëccëgu fukk ak juróom bi ku ko woor euh, doo bis euh, sab xol day dund buñ demee ci jamono joo xam buñ nekkee ci jamono joo xam ne xol yi nii day dee yow mi def loolu yow sab xol du bokk ci xol yee dee sab xol day dund kon lii nee na mi ngi ñaan yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy sellal seenu jaamu yàlla te dugal ñu ci biir ñee yàllay wax ne lii lillazina ahsanal husna wa ziyaada maanaam ñi gëm yàlla te dëggal dañu dem aljana ba noppi yàlla tegal leen ca mayaat leen nag ñu gis jëmmam ju tedd ja ja jëm yàlla ju ji nga xam ne yàgg nañ koo jaamu te mësuñ koo gis sopp ko te xamuñu ko kon euh, yàlla na yàlla boole ci ñooñu ci xut xutbab ñaareel bi mu sant yàlla mi nga xam ne moo euh, fab yenn jamono yi def ko euh, guddi yi mu def ko mu nekk lu am daraja daraja jooju itam mu siiwal ko bu baax fab yenn jamono yi itam defal def ko mu nekk ay jamono yi ngëneel mi ngi sedd na amul benn buur bu ñu war a jaamu tam yeeyoo ko ku dul yàlla euh, di seede ne sayidna muhammad sallallahu alayhi ndawul yàlla la di tànnee fam di koo xam ne moo gën a màgg daraja ci jaamam ñëpp te moo gën a fés euh, ndam ginnaaw loolu nee na nañu góorgóorlu bu baax a baax ci jëf ju baax ci bisi ngëneel yi bisi nga xam ne yàlla da ko ràññale def ko def ci ay ngëneel nañ ko fonk bu baax waxoon na ci xutba bu njëkk bee ne weeru Shaabaan weer la woo xam ne xeeti e, yiw yu bari moo ci nekk ndax dañ ci ful tuyaa ku def lu baax di ca sippi bàkkaaru ku ku tuub mu ne kon weer wi it nañ ko xam nañ jàpp bàyyi xel ci weer wi màggaayu weer wi ñu fexe ba jëf ci jëf yu baax a baax yoo xam ne danañ ko mën a jariñoo bu ëllëgee buñu delloo ci sunu boroom nee nañ xam lu weer wi te jàpp ko te euh, farlu ci nee ku nekk na ci sa dund ba jëf ci lu baax balaa dund gee jeex euh, nee na nañu bàyyi xel ci àdduna mu fexe ba mu bañ ñoo wor ndax àddina kër la goo xam ne li ñu ko xamee mooy day wore euh, te itam day jeex te itam day day naxe kon ki am xel mooy ki nga xam ne day wan ginnaaw àddina du mooyu ko jublu ci boroomam di ko jaamu kon nañ farlu ci jaamu yàlla ci weer wii euh, farlu goo xam ne dana ëpp farlu gañ daan def ci yeneen yi weer yu dul moom ndax dafa am nga ne lu mu ràññikoo nee na nañ bàyyi xel ci ne sunu boroom day am ay jamono yoo xam ne buñ ca tollee day sotti ay mayam ci ay jaamam kon nag te jàpp nañ ne weer yi bokk na ci jamono yooyu ñuy wax kon nañ jéem a taatan may suñu borom yi muy sotti te mooy ñu waajal suñuy suñuy xol ba ak suñuy jëmm ci taatan aw yiw ba buy sotti ñu bokk ci ñay ñay am euh, nee na euh, kon nañ farlu bokk ci taatan yiw woowu nga xam ne moom la sunu boroom di di di di di di di di sotte mu ne kon ki am xel ki am xel kon mooy ki kiy dëgmal sunu boroom te wan ginnaaw euh, àdduna tey jëf loo xam dana ko jariñ bu ëllëgee yàlla na nu yàlla boole eh, ci ñi nga xam ne dañuy dégg ndigal te di ko topp eh, mi ngi mi ngi ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla boole ñu jéggal eh, te dimbale ñu ñu ngi ñaanal kilifa gu mag gi suñu boroom dolli ko yàggal suñu kanam dolli ko dëgëral te dolli ko jàppale nee na góor góor lu baax ci defar suñu waajal suñuy ëllëg ñaawteef yi nga xam def nañ ko nañ fexe ba tuub sellal rafetal waajal ëllëg bala ñoo dem kon lii mooy tënkub ñaari xutba yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 ashhadu an la ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasul نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأتقياء وأصحابه الرحماء الأقوياء أما بعد فيا عباد الله إن لله عليكم نعما فعظموها وإن عطاياه لديكم جليلة جسيمة فأجلوها وأكرموها وإن مواهبه الوافرة لديكم غنيمة فابتدروا وأن الأزمنة وأن الأزمنة في الفضائل متفاوتة فصلوها بالصالحات واعمروها واجتهدوا في الأزمنة الفاضلة فوق المعتاد واكتسبوا من ذخائرها النفيسة ما ينفع يوم المعاد ولقد علمتم فضيلة شهركم هذا بين الصدور وأنه تتشعب فيه الخيرات وتحط الأوزار وتتضاعف istaqbalatkum laylatun nisfuhu nisfaha almaxsuusa bilfadli alazim warrahmati alshamilati walxayri aljalil aljasim وهي الليلة المباركة التي يفرق بها كل أمر حكيم عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها وفي رواية من صام النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب جعلني الله وإياكم من المخلصين في العبادة الداخلين في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحمد لله الذي عظم بعض الليالي قدرا وأطلع لها في سماء الفضائل فخرا ونشر فيها أعلام نعمه نشرا وندب لعبادته البلاد ترا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه أرفع العالمين قدرا وأوضحها فخرا أما بعد فيا أيها الناس شمروا في شهركم هذا عن صاعد الجد والاجتهاد وتزودوا فيه ليوم المعاد واغتنموا أيام العمر قبل النفاد وعظموا من شعبان ما عظمه رب العباد وتعرضوا رحمكم الله لنفحات ربكم fa inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafahaat wa tataharu min qabiixi kasbikum ase an tasaadu bi tilkum raxamaat wa amru mawaasim alxayri bil ibaada wala tuqassiruha ala shahwati almutaada ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة فالكيس من لم يزل عن الدنيا مهرضا وإلى الله منقطعا ولكل خصلة توجب له محبة مولاه مسرعا جعلنا الله وإياكم من السامعين الممتثلين وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين yaxfirullahu lana wa lakum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 akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta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 يا الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله akbar ah أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام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 allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd allahu akbar allah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 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.